wax ni ko euh, rapport bi nga xam te moom la inspection générale d'état muy IGE di wax mu ne muy muy am ci njàqare ne euh, boobaak léegi daal gisul ci ñu def euh, exécution mu ne muy laaj ndax exécution dana am wala ndax ba bañ ko bañ ko fa depuis le 3 avril ba léegi mhm. buñ gisee rapport yi commencé génn boobaak léegi mu ne boobaak léegi daal gisagul ne exécution am na ci moo tax muy alerté ki nga xam ne moo di président de la république Bassirou Diomaye Faye oui xam nga xam nga à propos des rapports là était sorti ci les corps de contrôle là parce que dès que le ministre de la justice Ousmane Diagne moi allant dans ce sens c'est la lenteur de ces dossiers là parce que nous mënuñu génnee ay rapport jëbbal ko son excellence le président de la république mom, nous sollicité si le ministre de la justice de pareil de ba ça traîne j'espère que il l'a dit Kérok, il va prendre à bras le corps. Mom, Dieu mom, mom le ministre de la Justice, désormais, c'est lui qui va s'en charger de ces dossiers-là. Mom, wax nako mom Ousmane Diagne. Donc, nous ngi xaar ba xam ni que nous mu wax ndax passer à l'action parce que pas mort. Man dama am lima gëm. Gis nga képp ku ñu épingler ci dans dans dans ces rapports-là. Man dama gëm ni que war nañu diligenter ces rapports-là. Ñu wolu la, ñu ñoo déglu la, tout simplement gis nga gis tudd la ci rapport. Mm. waxuñu ni que yow yaa def. maintenant fan la ñuy xamee ni que yow yaa def wala defoo foog ñu wala devant les enquêteurs nga ñëw ñu ne la ah diw yow def na lii ak lii ak lii est-ce que ba xam yow la wala lii lii nii noonu lay demee moo tax il faut que mu am répression te répression boobu ñu ngi koy xaar suñ kii commandé Pape Mor il faut que ñu ngi ñu ngi xaar pour nous diligenter ces rapports là nous, nous, nous, acquis de droit ils ont été cités dans ces rapports là mais nous quand même nous pourquoi nous citer la vie tel tel tel tel pourquoi ça Nous andi ay nous andi ay preuves nous nous, nous, parce que nous, nous, nous, nous, on on peut pas continuer d'être dans un pays nous dina nous détourner milliards et des milliards Bon, nous, nous, euh, bay len jàmbur parce que seytaane yi noonu la ñuy waxee seytaane yi noonu la ñuy waxee koo fipp bi ñu na la yo bay len jàmbur bay len jàmbur deful dara parce que entre temps ñooñu jàmbur yoyu dañ leen di mosal ci lu ñom lu ñu jël parce que c'est ça la réalité hein ñun xam nañu lepp fi ci Sénégal képp ko taxaw di défendre sacc ku sacc ay milliards la koy défendre c'est parce que entre temps moom daf la mosal ci lolu ouais mais c'est ça daf la mosal daf mosal moi nous on peut pas cautionner des détournements surtout xam il faut avoir euh, euh, euh, parfois une bonne foi nous dans un pays de 18 millions de sénégalais un pays qui fait parmi les 25 pays les plus pauvres au monde ñu ne là dans ce pays là qui s'appelle le Sénégal il y a des personnes qui détournent des milliards est-ce que nous c'est cohérent je pose la question dañu ne Sénégal de puis dëkk bu mais dëkk bu ndóol la ay benn nit lu mel ni Arfan di détourner ay milliards ba pare ñu ne kenn du leen topp boo leen toppee ñu ne la yow da nga di di def comme Macky bu na mais gis nga ku fay ku ku Sénégal di ko jusqu'au dernier centime di nga trésor public fay jusqu'au dernier centime parce que ñun loolu la lu ça va commencer d'abord par nous les sénégalais mu la justice sénégalaise mu parce que ñun venons gëm ni que justice warna def liggéeyam yoon warna def ces dossiers là ci ces rapports là na yoon def nous ñun loolu la ñu wax bu def nañ la daan bu fekkee defoo dara ñu nga parce que man loolu laa yàgg gëm mais man li mënul cautionner ay nit des personnes citées dans des détournements ba pare bo len lalé wala bo len waxé ñu am ay personnes yu naafekkee wala ñu seytaane taxaw na leen ne bay leen jambour parce que yéen may yéen amo leen xaalis wala leneen leneen leneen man je préfère avoir des millions wala des milliards yo xamante man mako ko liggéeyal sama bopp dans ce cas su ko yobé ci samay da fay law man Arfan loolu laay dundee mais man duma dem jaawale sama poste ak poste askan wi ba pare di glorifier dina man milliardaire la man amna naa ba pare boré ci extrême arrogance bo xamante di jaay nit ñi ni que yow ya yor yow borom xaalis nga borom daraja nga yow borom kep. alors que auparavant en 2012 am na ñoo xamante ils ont été cités dans ces rapports là ni que ñii ay milliardaire lañu en 2012 sax bo leen de ci mbedd bi yërem leen ñu jënd café ak mënu ñu ko jënd. dañ doon taxawaalu ci ay làmb dañ doon taxawaalu ci ay ngénte tey boo leen gisee ay milliardaire la ñu ah ay milliardaire lañu ñu barke Dembo Ndiaye ay saagakat la ñu nekk ci internet bi di saaga tey ay milliardaire la ñu ci jamono Macky Sall parce que Macky moo leen defal ay ay milliardaire mm-hmm. c'est comme ça loolu mooy senegal te loolu yow nit ku liggéey douze ans supposons que Macky Sall bu mu ñëw douze la la jëlé amna sa premier mandat Macky Sall bokkuñu deuxième mandat bi lañ commencé bok amna ño ñoo xamante ne nañu dès le premier mandat de Macky Sall d'accord a ñooñu lay waxal imagine nga bok depuis le premier mandat de Macky Sall nga nekk pendant douze ans 12 ans ci la fonction publique dafa tax nga nek milliardaire ah Pape mort douze ans ak ku nek ku def soixante ans de fonction publique mënul la fonction publique les enseignants xam nañu les li may wax ku nekk enseignant retraité amul kër préféré yubbi village am bu mu moi sinon wa a mënul dëkk Dakar pendant 60 ans ci la fonction publique mënul tabax kër yow nga en 2012 def 12 ans au pouvoir nga milliardaire foo de les c'est ça la question c'est la question dont les gens se posent. Il faut de les Il y a 12 ans, qui a 60 ans, la fonction publique, de retraité. Ils pension 15 000. 3 mois chaque 3 mois chaque trimestre ñu fay la 15 000. Qui pourtant il travaille dans la fonction publique Nous, on a des papas comme ça a dignement dans la fonction publique ñu dem ba retraité di leen di fay ay trimestre par trois mois par trois mois ñu leen di fay euh, pension bu quinze mille trente mille yow nit ñëw liggéey pendant douze ans ci régime Macky Sall mu nekk milliardaire tabax depuis Ndakaaru ba Somone. peut-être am na ñoo xam matul luñ douze ans sax peut-être. mën am nañu loolu la am na ñoo xamante ne seen bu ñu nekkee ci nguur Macky Sall motul cinq ans am na ñoo xamante ne ci deuxième mandat bi la ko Macky leen Macky Sall nommé. Beaucoup nous c'est ces personnes là qui sont tellement arrogants comme milice les ñooy taxaw ancien milice di oui, oui, oui, oui, di ils taxaw ah, ils sont opposants ñu ci opposition bi di wax. su rapport daf leen nañ leen ci kanam yoon Sénégal ñom ñoo appauvri ce pays là les politiciens là ñom ñoo sacc Sénégal ba mu jeex tak Sénégal bu nekkoon nit mu ngi sukuraat Pape Mor li ma lay wax ni li ma xam la Sénégal bu nekkoon jëmm nit dëkk bii bu nekkoon jëmm nit ma ngay sukuraat pour dee pour waaj a dee parce que ñom dañ ko muccu muccu dara dam muccu dara dam ba mu jeex tak ces politiciens là boo paree boo waxee ñu boole ci arrogance boo xamante ne mooy loolu. Hmm? merci Arfan euh, chers téléspectateurs yéen a ngi sétane sen émission 17 18 Arfan ñu jall ci euh, beneen point euh, ki nga xam si moo di Bassirou Diomaye Faye président de la République mom demandé woon na pour.